di leen ziyaara bu baax ñu kenn rawat na kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci jataay bi sunu mag sëriñ Baare Bétoo Mbàkke ak sunu sang yi sëriñ Xaadim Ilimaan ak ñi fi nekk ñépp ngir tàyyee lim ñuy fas yéene ginaaw bu ñuy siyaaree ñëpp nuyu ñëpp ci kilifteefu sunu sunu wayjur muy soxna Mame Penda Mbacke mi nga xam ne moo nekk kilifa ak njaboot gi nga xam ne ñooy taxawee bis bii muy bésu fàttaliku sunu maam soxna Oumy Mbacke bintu Cheikh Khadim radiyallahu anhu ñuy sant ñëpp ci teewaay bi waxtu yi def ñoo xoj lool ba tax na du def lu may rek jox sëriñ Mbàkke Abdourahmane mi nga xam ni moo ñu war a defal waxtaan wi ci tomb bu am solo mu jëm ci taxawaay yu jigéen ci yoonu murit yu jigéen ci yoonu murit muy tomb bu am solo bu yitteel ci jamono ji nekk waaye rawatina jamono ji nga xam ne ci lañu toll sëriñ Mbàkke Abdourahmane mii def waxtaan wi nag kenn du ko xamle fii ndax yaakaar naa bu ma néewul ñëpp xam nañ ko ñi ëpp ci mbooloo mi xam nañ ko ci ay taxawaayam yu rafet ci am njàngaleem ci anam yi jàngale yëpp ñu bari di jariñu ci moom ca xëy na sax xamuñu ko wala musuñu koo gis mu nekk ku sawar ci liggéey bi ku ci am yéene ku ci am taxawaay bu rafet rafet bu ñëpp mën a seede yàlla defal ko it tawfiq ci xam-xam bu sell ca it man koo joxe ca képp ku ko déglu dana ko mën a jariñoo yàlla ko yàlla sàmm yàlla ko yàlla aar yàlla yàlla guddal aw fanam mottali ay yéeneem ndax bokk na ci ndami yoon wi bokk na ci kenu yi nga xam ne féete nañ yoon wi ci wet yu am solo wet yu rëy yoo xam ne képp ci ñun rek ku xam-xam yitteel mën nga koo seere ci moom kon moom lañuy jox tomb bi nga xam ne moom la ñu tànnoon muy taxawaayu jigéen ci yoonu murit ngir mu euh, jàngatal ñu ko incha allah taala wala mu leeral ñu ko ngir ñu mën cee jariñu di nuyu Serigne Mbacke mi nga xam ne moom. ab sang du moo wax ne doomi nijaay la waaye ab sang moom di nuyu soxna yu tedd yi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp rawatina soxna maam Penda mi sëriñ El Hadj wax léegi mooy kilifa njaboot gi woote jataay bii di fàttaliku soxna su tedd soosu ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziara sëriñ Saliou ña ngi lay nuyu bu baax di wax ne fàttaliku ñu mel nii am na solo ndax seeni taxawaay waaye yokk leen ñaan la yokk leen ay maqaam ndax barzax ña fa nekk ñëpp soxla ay yiw yi di leen yokk ci seen kaw ndax li sëriñ bi waxoon ne ku fa dem mayu mawu mbaa nga fooyu kon fexe ba fooyu xéwal gu bari du sotti ko ci yow te doo ci jox kenn bokk na ci li koy maye bàyyi fi njaboot ñu lay ñaanal saa su taxawaayu jigéen ci yoon wi lañ wax taxawaayu jigéen ci yoon wi nag mooy taxawaayu jigéen ci lislaam ndax yoon wi lislaam la ci anamam gi gën a mat gi gën a sell sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu andiwu fi diina ji yees sa suufi leneen waaye la yàlla joxoon yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam tem dox ba jamono tax lu bari raaf ci moom la ñëwaloon yeesal ko ba mel na meloon mu sóobu ko sóob ci ñu àndaloon ñam àndaloon dinañ ci sóob nag ay góor ak jigéen lañ kon góor ñaa ngi woon ci biir woote bi jigéen ñaa nga woon ci biir woote ba kon saa bu ñuy fàttaliku léeg-léeg dellu ci fàttaliku jigéen ñi waaye xam ne jigéen ñi am nañ taxawaay ci yoon wi ndax am nañ ko ci lislaam te yoon wi lislaam la waaye ni jamono doxee nag mu mel ne dañ leen a dëkkale feneen fu ñu dëkkul wala jàpp na ñoom seen wàccuwaay amul solo lu rek ñu ne am ah moom solo ndax jigéen la loolu ak jaahiliya mbokk yi du lislaam ci jamono jaahiliya njëkk lislaam lañ doon ñàkkal solo jigéen ba tax bu nit a am doom muy jigéen dangay ruus wa bu bushira ahaduhum bil unfa walla wajhuhu muswadda wa huwa kazim yatawaara day làqatu nit ñi ndax lan jàpp na daal kii mu am koo teg gàcce ëllëg la loolu ak jaahiliya waaye ci lislaam moom nit la yàlla soxla nit yàlla soxla kenn ku ne ci ñoom muy góor gi ak jigéen jiit yàlla daa am risaala dafa mission bu mu bu mu la soxla boo xam ne kenn mënul la jaa wut maanaam yàlla doy jigéen genn góor gu ko mën amut waaye li yàlla doy góor yi jigéen mënu kon li am solo ku ne xam ki nga doon xam lañ lay doy nga taxaw ci jigéen nag dafa am solo lool ci lislaam am solo ci yoon yoonu sëriñ bi am solo ci lislaam li koy firndeel mooy lépp ci ñoom la tàmbulee jigéen moo njëkk a dugg ci woote bi lislaam bi ba yàlla wooyun ci yàlla muhammad yebal jibril mu fekk ca xuntima euh, sallallahu alayhi wa sallam wax ak kolam ko wax mu jaxa soo jaaxalee jëw ci soxna xadija soxnaam la ñëw wax ko ko moo ko defal dalal ko ba mu wootee moo njëkk a wuy si moo tax it taxawu yonent bi alayhi salaam ci woote bi taxawu ko ci woote bi ba lu baree bari jaare ci loxoom ñu baree bari ñu tuub jaare ci loxoom ndax mën nañu wax ne ñi tuuboon ca kër ga ñëpp moo moo tuub tuubale fexe ba dugg ci islaam ñu mel ne imaamu Ali Zayd ibnu Haarisa ña nga xam ne ñoo jiitu ci woote bi waaye lu baax nit du ko def di ko rëccu jëf ju baax du sànku yàlla du sànq jëfi koy rafetal alxuraan ko wax moo tax benn bi soxna Xadija moomu eh, yab def na ndab daf ci aw ñam di ko indi yontu bi alayhi salaam jibril ñëw na yontu bi sa borom nee na Xadija nga ñëw yor ndab loo xam ne aw ñama cee ne nee ko bu ñëwee borom a ngi koy nuyu di bëgg ci moom di ko dig kër ci aljanna loolu jëfuma waaye soxna suma yam yi nga xam ne it moom ma njëkk rey ci lislaam mu njëkk tuur ba deretam ngir lislaam loolu it day tekki ne jigéen am na cër bu rëy ci lislaam waaye yonent yàlla Muhammad alayhi salaam daraja ju rëy ji ko yàlla jox ci penk jigéen la wàcce ab liggéey soxna Aïsa ku téye ba mu dog sallallahu alayhi wa ñu denc ko ci biir nag soxna Aïsa mu dëkk fa moom ba tey jii ku siyaare rawdu sharifa néeg jigéen nga siyaare ndax néeg soxna Aïsa la kon ñu am solo ci diine lañ muy lu am solo it lu mat a jàng danaa ko faral di wax soxna Aysa bi ñu ko denc bi ñu dencee yonent salaam ci néeg bi daa wéy dëkk ci néeg ba fii nag lu fay fonk fonk nit bis bu ñu ko dencee fañ ko denc nga daw fa jàpp ne armel la mu ne fa bi Abubakarin bàyyam génne àdduna ñu denc ko fa mu des benn barab mu ne nañ ma ko fi bàyyil biñ jamee Seydina Omar mu yónnee ci soxna Aysa ne daa bëgg ñu may ko mu denc ko mu dend ak ñaari àndandoom yi soxna Aysa isaar daf lu baax ne kon nañ ko fa denc man su faatoo ñu yóbbu ma ci keroog bu ñu dencee Sidna Omar ci biir néegam la wax ne dootuma fi daf yaramu ne ndax jaamur ak fi Ibrahima salaam borom këram Abu Bakar bàyyam waaye Omar nag jaamur la ci moom ca la noppee summi ko ci néeg ba loolu it bind bu ñu war a jàng lu bare la ci jigéen kaamilu alxuraan bi ñu yor di ko jariñoo ginnaaw yàlla jigéen a ko sàmmoon ba mu jot ci muy Xafsa soxna Xafsatu bint Omar ibn Xattaab radiyallaahu anhumaa moo ko dencoon ba bi Seydina Osmaan ñëwee dajale alxuraan jëli ko daf ko ndey ba ci la alxuraan tasaara fi mu tasaara kon mën nañu yu baax yépp jigéen la waaye Sëriñ Tuubaa mii nga xam ne tey mooy sunu lépp moom la yàlla teg ci kanam mu yor lislaam ji dundalaat ko yeesalaat ko na ko yom de islaam yore woon jigéen jeexital nañ ci moom lool tàmbalee ko ci maam astawalo maamam soxna jaara way juram ak waa këram yi mu dëkkaloo taxawaay yu rafet lañ am ñu bari nett lañ sëñ Bousso nett la ko ci minan ci diggante maam astawalo ak soxna jaara niñ doon waxtaanee moom ci ndaw nu góor yàlla yi fonke woon xiyaamu layli ba tax mu daan guddee mu mu mu ci booba demagul daara muy jël ak buum di ko takk ci kawam di bëgg a taxaw guddi yëpp kon mel na ne way jur wu am solo mën naa am jeexit yu solo ci njaboot foofu la am solo jigéen tàmbale ci yoon yi ba sëriñ bi woote it ñëpp la woowoon daa fekk ñu woyofal jigéen ñàkkal ko solo jàpp ne amul solo ci diine ji amul solo ci àdduna sëriñ bi ne déedéet te loolu yàgg la abul ala almaari bu yàgg waxoon na ne fa salaatul fataati bilhamdi wal ixlaasi tujzi an yunusin baraa nee na jigéen daal nañ ko jàngal kaafiroon ak lexlaas waaye sóoratu baraa saa yu gudd yu soxlawu ko ndax njàngum jigéen amul solo sëriñ Tuubaa ñoo jële fi loolu samp daara ca daaru alimul xabiir fa sëriñ Ndaam Abdourahman yóbbu fa taaliba yi yóbbu fa njaboot gi góor ak jigéen waxuma la ay doom waaye ay soxna sax yóbbu na leen xam dañoo ñëw ci kër gi te seen alxuraan akgut sëriñ bi delloo leen ci daara ji ñu àggale ci alxuraan kon wan nañu ne ñu njàngum jigéen am na solo man damay faral di wax ne boo amoon daara joo xam dañ la ne yow indi fa genn gone genn gone lañ mën a jëlal nga am ku góor a ku jigéen bu fekkee da tànn yóbbu fa jigéen ji jigéen bu jagee xeet buy jag waaye jenn jigéen ju yàqu ma na yàq aw xeet loolu ñëpp xam nañ ko kon am na solo waxtaanee tomb bu mel nii ci jamono ji nga xam ne dafa am ñoo xam ne nag dañoo bëgg yàq àdduna te bëgg ko jaaree ci ñaar ci gone yi jigéen ñi ndax ñooñu ku leen yàq yàq àdduna ku fexe ba jigéen ñi ba fonkatuñ diine xamuñ diine ñoru leen jàpp wan leen ne leen diine da leen a delloo ginnaaw da leen a woyofal wan ko xale yi bu ñu fippoo rek àdduna yàqu te am na ñoo xam ne seen liggéey loolu Sëriñ Tuubaa nag ba mu ñëwee moom xam ne jigéen bokk na ci ëpp solo ci woote bi ci la samp wooteem bi teg ko ci woo jigéen ñi jàngale yar leen ndax lépp nag jàng yar ci jiitu daa faral di wax ne bi muy wax naan kunu maan fil ilmi raghibina li wajhi man bihi yuqimu diina yéen ñëpp na ngeen bëgg xam-xam ñëpp sëriñ bi jooju nañ ko bàyyi xel man damay wax ne yéen góor ñi waaye yéen jigéen ñi nga xam ne jàpp ngeen ne xam-xam amul solo ci yéen jigéen yéen doomi soxna yi ak yéen ñeneen ñi nga xam ne dañ leen a leen xam-xam solo ci yéen sëriñ bi ku nu maan ñëpp lay wax kon na ñëpp jàngi ndax ñëpp lañ soxla seen xam-xam rawatina jigéen ndax jigéen taxawaay bi ñu koy doyee ci lislaam bu xamut mënu koo taxawee xam nga ci lislaam dañuy wax ne doom bu juddoo dañoo bëgg ñu nodd ca nopp ba liqaam ji buñ koy tudd nodd ca liqaam ji kuy nodd koy liqaam bu ñuy tudd mën nañu wax ab sëriñ la ñuy andi mu nodd liqaam waaye fa mu juddoo nag ku fay nodd li fa liqaam jigéen ak fu ma def ndax jigéen a fay nekk kon sage-femme yi bu ñu leen jàngaloon doom rootee ñu ne allahu akbar xale bi njëkk a dégg kalimatu tawxid su màggee ku ñu am yaakaar ci ne du bokkal yàlla lay doon waaye loolu lay dégg nag ba bisu ngénte ba ñëw ñu door koo ñu door koo noddal kon loolu it lu mat a jàng la ba ci des it yaay bu xasee am doom nit bu xasee am doom moomul boppam bépp jéego bu muy seqi bépp acte bu muy posé na xam ne doom a ngi ci ginnaawam di ko roy bari na ñoo xam ne ñoo yàq seen doom ko ci seen comportement moo tax jigéen moom lañu war a gën a jàngal moom lañ gën a yar xam saa bu tegoo ci yoon rek ñëpp tegu ci yoon loolu tax Sëriñ Tuubaa jigéen ñoroon ko ci njàngaleem mi mu yóbbu leen ay daara yar leen jàngal leen ku jàng alxuraan ba mokkal jàngale la xam-xam yar la nag yarub jigéen ndax yooyu yëpp mënuñoo tàggoo loolu moo jur ñi nga xam ne ci keppaaram lañ génne doon ay ndey soxna si ñu màggal ak ay magam ak rakam noonu lañ mel seeni kër nekk ay daan ñuy jàngale di yare ku njëbbu ci kër boo fa demee nit ñi xemee ma jëlewaat foofa loolu luñ def ci nit ki la Euh, léegi sëriñ Moussa ko waxoon feeñal bu baax ba muy tënk di melal ma damay wax ne bayit woowu moo tënk liggéeyub sëriñ ci jigéen ci xarnu bi muy wax melal dana sëriñ bi daa wax mu wax ne mu wax ne soppi jigéen ñi muslimaat soppi jigéen ñi muslimaat kon mel na jigéen ñi ñu ngi doon gëm yu baax sangat leen mbaamu mbaamu mbaamu mbaamu jàpp nañu it ne ñi gëm ne suuf bu sutaalee dañ koo jal saa bu nit nekkee ci kër ab fab cër ñu ne du neen taxawaay yu rafet mbokk yi lu mu mënta sot amul wax naa ne léegi Xadija garantil nañ ko aljannati faatu te julli wut ay jëfam yu rafet la kon jëf ju rafet du sànku loolu mooy li am solo bu fekkee am na lu tudd ak noob am njëriñ mooy jëf ju rafet loolu loolu nag gàllaaj la gàllaaj nag ku la ëpp pexe mën la ko def koo koo koo fexe ba gàllaaj man naa fexe ba dindi ko yàq la yow kon yooyu baax nañu ñu di ko bàyyi xel ci mel nii ndax sopp jigéen ñi musulmaan kon sëriñ bi daal di def leen ay jullit ñu gëm yàlla mi leen moom képp xam ne lu am yàlla lépp lu wàcc kaw suuf si da ngay gëm ne yàlla ko dogal xul lañu siy banaa illa ma kataballaahu lana saa bu nit nekkee foofu noppalu waaye bis boo jàppee ne lay xew nit ñi la loo am wala loo ñàkk nit la ko xañ loolu dal nit la ko teg noppi ngaa noppalu waaye bis boo gëmee ne lépp yàlla lu am yàlla yàlla ne la mu gëmm ne la wut te du jaawale lum la teg daa gën ci yow Seydi Abdou Khadre Mbàkke radiyallahu anhu daf daa wax loolu ne sunu boroom dana tege lu metti waaye lu tege lu gën saa bu nit ki xamee loolu day noppalu léegi nag sëriñ bi loolu daf defar ay jullit yu jigéen soppi jigéen ñi muslimaat ñuy dawi góor si muhsinaat fii nit ñi liñ baaxoo wax mooy góor gu baax day moytu jigéen jigéen ju baax day moytu góor yi moom si la defar ay góor ñoo xam ne bu leen jigéen bëggee jox loxo ñu ne ko jéggal ma nit ñi nag liñ ma baaxoo siifu mooy diw sangam du jox loxo du jox loxo jigéen te jigéen ju baax warut jox loxo jigéen góor gu du jàmbur ci moom jigéen du saafu xonte day sukk nuyoo góor gu ko jox loxo su bés baa ngeen layoo sëriñ Moussa Ka ko waxoon góoru jigéen ñuy saafu xonte dëgganul xaraam na téere baa ko wax bul ma la kon du ak taaxe du ak xay waaye ak tubaabe la te yàlla nag tubaab yi nag yàlla yebalul woon ci ñun ñu leen topp yàlla dañoo nattoo ñu not ñu ñu not ñu indil ñu seen culture bëgg ñu ko imposé wuñu ko nangu Ibnu Xaldun day wax lu am solo lu bari suñ mbokki jigéen yi seetluwuñ ko ñu ngi koy def te seetluwuñ ko jàpp ni ak mat la fekk ak manqué la Ibnu Xaldun daa wax ni nit soo ko notee day jàpp ne yow yaa mat ni nga mel a mat noo noo mel baaxul loolu mu indi ci société xeesal ba tubaab di dikkee not ñu seen der weex seen kawar gudd seeni i bët bu jàpp na yooyu ñoo dig man jigéen ñi tàmbalee xeesal di jokk kawar di poosé ay we di bulal ay bët ak manqué la mbokk yooyu du du du ak du tubaab bi ko def moo ñëw yées ci nit ñi ñëw yées ci nit ñi yooyu bu ko nit ñi xamee noppul bu ko nit ñi xamee noppul waaye umpule ko moo ñuy jural yi xew kon euh, sopp jigéen ñi muslimaat ñuy dawi góor ne muhsinaat ki takkaay yi seen i baat ci takkaayu seen i baat li ñuy tudd tabarruj tabarruj Sëriñ Tuubaa da ko fay jële woon jigéen joo xam ne balaa am jàmm li mu am ci takkaay lépp dana ko jël ne ci mbedd bi posé boppam ndamul jigéen mooy anamu ma ngi ci biir jumaa li ci ne ci yool li muy rëy rëy jigéen jullee ci këram biir néegam moo gën moo jullee ci jumaa ji noonu la ko yàlla bëggee danaa ko faral di wax it nag nit li koy jariñ mooy mu def luñ ko digal laa tafaalu shay'an bi ghayri idni fal idnu ak góor a ci yam ci loolu nit ki lim def te diggaluñ ko ko amul ko njariñ ci misaal jigéen kenn yebalu ko ci armeel te boo demee ci armeel fekk bu fees dal lu ñuy siyaare dafa dolli xaalis bari ndeysaan duñ ci jariñu ndax amul seen ndigal yooyu am mat na bàyyi xel waaye toog ci sa kër siyaare ki ngay siyaare ñaanal ko mooy sew yiw bu julli jotee li gën ci yow nga toog seen ak biir julli boo demul dàkk ja nag kenn du la tare boo mel na nga war a mel yooyu mat naa xam ndax am na ci suñu mbokk yi ñu bëgg lu baax lool di sonn waaye nañuy sonne moo amul njariñ léeg-léeg ñu kuréel di yëkkati xasida santuñu leen ko amalu leen njariñ Sëriñ Abdou Khadre daana wax ne ñoo gën a neex baat bu wax seen yëkkatikat dagoroon ñu nodd loolee Sëriñ Tuubaa daan na jàngaloo waa këram waaye da leen koy réem loo bu kenn dëgg su leen ko saayee bañ man ko nañ koy waxee mooy bu ma bu ngeen dégg sama yëng ngeen di ko réem fii nag dañuy jàpp ne njàmbaar la ay jigéen lañ ña ngi yëkkati jàng ci kaw amalu leen njariñ mbokk yi nit day fexe ba daf loo xam ne aw dañ ko koo digal njariñ du bàyyi koo ci luñ la digalul luñ la digalul loolu baax na bàyyi nga bàyyi ko xel kon euh, taaru taarub jigéen jikko la ak defar sa njaboot ba bu ñu génnee ñëpp nawloo leen ci misaal tey maam jaara Bousso ku ko ëpp xiima ci ci Sénégal ku ko ëppi ndam kenn du ko waxal ay takkaay xam nga maa ngi lu ñu doon doyee takkaay bu jamono naqaree ñu faj ci aajo suñuy nopp ñun ñëpp da ngeen xisab sunu maam jooju demoon di lijjanti kenn ci sunu maam ñu waxtaan ba juboo sëriñ Xaadim xam ne damay wax ñu ne indi leen lañu war a joxe ndekete lañu yoroon daa war ci yomb ba ko yaay dañuy wut yégee jaar ci ginnaaw ñëw laaj leen lu xew ñu ne ko ñun kat lañu indaale woon moo wadd ay takkaayal la leen génne joxe leen joxe leen ko ñu joxe ko ñu jox leen soxna sax loolu sunu maam ñun ñëpp moo ko def moom lañ ko defoon waaye la ca meññ ko lépp aw yiw la ñoom loolu lañ doon ay takkaay buñ ko dencee ba seen borom kër wala seen njaboot wala seen ku doon ñoom dara am ay aajo yu tar ñu génn ko joxe loolu ci histoire xam nañu ba tey waaye du lu ñuy takk di ko génn ci mbedd bi jigéen li muy féete kaw moroom mooy jur naa fi doom joo xam ne yilif na sa doom yilif jur naa doom ju yilif sa doom Sëriñ Tuubaa loolu la fi indi woon tàggat fi ay nit ñoo xam ne bañ noppee doom ji ñu am fu ñu dem yilif fa fu ñu dem yilif fa loolu mooy ndamul jigéen mbokk yi du rek ay takkaay yu bari ñuy takk di di loolu boo génnee fii doon ci tubaab gis nit koo xam ne nii amul kenn kenn juru ko daanaka tekkiwul dara ci àdduna yor ci loo xam ne nii mën na la jënd fukki yoon boo doon kuy jaay kon yooyu mën na bàyyi xel rëkki takkaay yi seen i baat di muuru dëddu xarno bi daf la ñuy muuru di solo ni ñu war a solo taaru jigéen mooy mel ni ko lislaam sant te su turu yàlla la boroom xam-xam dañuy wax ne yàlla ni mu bind yaramu jigéen am na naaj wi nu mu ko exposé ci naaj wi am na xeetu cancer der wu koy dal woo xam ne yàgg ci naaj wee koy waral ci loolu la boroom xam ne gis ndekket ba yàlla sant jigéen muy muuru du rek ngir nattu ko waaye bëgg koo aar la loolu ay gëstukat ay ay ñoo ko wax Eh, ñu dëkk Angleterre ñoo dem ba gis ne derub jigéen bu ko dul muur di ko bàyyi ci naaj bu tàng lu yàgg man naa am cancer bu yow ñu ne la kon muurul ngir nga mucc muurul ngir nga ñoŋ muurul ngir nga am xiima mboolem ñi ñu agressé ci ci ci yi ak di leen siif du jigéen ñi mel nañu war a mel ku mel ni nga war a mel di dox waxtu waru dox kenn du la Sëriñ Tuubaa ñu mel noonu defaroon teg leen fi ñu yor ay kër yar ca mbooloo loolu nag ndonal yoon wi la dañ ko war a ñëpp war a jàpp ci loolu des fi ay saa bàjjan yu defaree di yar jigéen jàngal leen diine jàngal leen adduna jàngal leen nañu yore kër ñu bari ñu ngi jàmbat ne xale yu bari bu ñu sëyee dañuy tas sëy dañ koy jàng boo ko jàngut booy dem bu naqaree nga bëgg daw ñëpp dañuy wax ne la saako kaani la bu ñu def suukar ci kaw bu ngan ngir ruusee rek coono yi tàmbali coono yoo xam ne nag kañ lay jeex ba kenn ci yéen faatu incha allah. loolu nag ku ñu yarul defarul li mënoo ko déggu ndax lim la jural la dangay ngay seen maam sunu maam sëriñ waxoon na ko wala taala mi an na jihaat an niswati fii taatil azwaaj yi doon nañu reet soxna Penda Diop lañ ko waxoon kon loolu jihaat la jigéen day jihaat ci biir kër borom këram fas yéene bu ëllëgee mu am cër bu kawe ci aljanna waaye fii ci àdduna it mu bàyyi fi njaboot goo xam ne ku tudd mbaax tudd leen ku tudd njub tudd leen tey kilifa yi ñuy tudd ñi ñëpp soxna umee ngi nii yàlla dogal bàyyi fi takk ndeer waaye lu tax turam des ba nagati jikkoom ak i jëfam ñam doon jëflanteel kenn mënu ko defaate loolu nag bind la ci ñun ñëpp ñun ñëpp war nañu jàng ci ne dañuy dem fii nii ay at a ñëw dañ naan ñii fi ne woon léegi nag loo fi bàyyi ëllëg xalaatal ndax danga fi bàyyi widd ndax yow tey boo faatu woon diin dana la jooy ndax mbaax dana la jooy ndax ak mbokk dana la jooy ndax danañ daje ci jataayu mbaax fàttaliku ne laa ngi doon lu baax léegi am na fi sëriñ sëriñ Saliou tudd fi sëriñ Modou Mbacke rahimahullah waxtaawaay bi da am ci lii loolu jëf ju baax la waaye am na ñoo xam ne bu ñu faatoo kenn du fàttaliku ñoom dara mbaa boog bu ñu fàttalikoo du du rafet kon bind yu mel noonu bokk ci nañ ko bàyyi xel jataay yu mel nii ku ci jógee war ngaa gën a jaajo waat gën a góorgóorlu boo doon góorlu nga yokk ko àdduna indi wu ñu fi pour ñu dëkk fi te dañuy faatu dem feneen ñu attee ñu foofu la xéwal yi nekk foofu noo fa mel day sax bu dee mbaax bu dee safaan noo fa mel day sax ba nga gisee mag ñi yàgg jaay seen diine seen seen seen alal jaay seen lépp ngir bëgg a dund diine na mu waree xalaat dund ëllëg la fii rek ñu bàyyi ci noonu yaruñ leen jàngaluñ leen moo tax jàpp nañ ne rek la ña ngi xëntewoo ci rafet. yu xoy-xoy dafa ne mooy njàmbaar yére yoo mën a sol wala takkaay yoo mën a takk génn ci mbedd mi boo génnoon fii dem Europe fekk fa koo xam ne doo xam noo koy tuddee moo la foofu kon yooyu ndam yëfi àdduna la waaye li ndam dëgg-dëgg mooy nit koo xam ne ku la gis warmal la boo yorul benn dërëmit ku la gis warmal la am na yor alal jëlul jeex kenn tegu leen fenn amuñ benn valeur ci nit ki tekkiwuñ dara ndax seen jikko ak seen seen melo loolu amul solo nit day fexe am dignité di dignité mooy fexe ba lil yàlla bind bindee nga mat ko yàlla ñu benn ñu nekk ay jaamam nañ jéem mat ay jaamam kenn ku ne ci noonu la ko yàlla sant bu jéem mel noona bu ko defee ku daje yow danga la war maal waxaytuma taxaf ilaaka ilaahaka al ahad yaxafka min xaw fii ka xaw kullu ahad loolu sëriñ jàngale woon saa boo ragal yàlla lépp ragal la ndax dañ lay bàyyi xel ndax teg gi nga bàyyi xel yàlla loolu mooy li am solo loo xam ne fii ñu toll kuy fàttali nit ñi war leen a fàttali loolu xamal leen it mag ñii liñ yor ba te seen tur des fi ñu leen di fàttaliku seen tur réerut foruñ ko doxuñ ba dajeeg moom dañ koo liggéey nit ñi it nag li leen di may leen ab liggéey la kon i'malu qul i'malu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu mu'minun wa sa turadduuna ila aalimi lxaybi wa shahada fa yunabbiukum ma kuntum ta'malun asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu kenn ku ne xam na ne njabootuk sëriñ bi rawatina jigéen ñi képp ku ca jëf lu mu tuuti tuuti sëriñ bi dana ko gis ndax ku ne xam na ne fonkoon na njaboot gépp waaye am na lum cëraloon jigéen ñi kon cër boobee moom la soxna si di fàttali te jële woon ko ci magam yu baax yooyu nga xam ne ñoo sos bis bi di ko fàttaliku muy soxna Faati Mbàkke di magam ak sëriñ Saam sëriñ Bas Saam ñoom ñépp nuy ñaan nag yàlla na yàgga woote bis bii te di ci am ngërëmul soxna si ngërëmul sëriñ Touba ten bokk ko te nuy fàttalikul lii sëriñ Mbàkke wax wax nag saa su daanoo nga ne wax jekk a neex xamal ne naroo koo jëfee wax jekk a baax la ñuy wax bu ñu nee jigéen na muuru du caagee ni sonal ko tax du caagee ne bañ mu feeñ a tax waaye bëgg ak wér-gu-yaram te wér-gu-yaram baax ci doomu aadama loolu kon dégg ngeen lim fi wax loolu lañu war a njëkk jëfandikoo te boo demee ci imaamul xasaali boroom xam-xam la boo xam ne bi yàlla da ko xamal lu bari ndax dafa gëstu te gëstoom li ci ëpp mu jëm ci doomu aadama waaye bi muy agsi ci doomu aadama ba di la wax der yi nga xam ne moom la sun borom tegale ba mu nekk aw der woo mën a fees buñ la waxoon bu la leeraloon benn bu ci nekk li muy jëriñ ci doomu aadama ak li muy jël ci jaww ji ak li muy jël ci jant bi boo fofee fof rek boo ko defee ba aw der teggi ko li nga waroon a def mooy seeti docteur bu la mën a delloo la nga ca fofoon kon bu yàlla dogalee nag ñu àgg ci foo xam ne dañuy xeesal te cancer ku ne xam na la cay mujj kon nan tàmbalee jëfandikoo loolu ba déwénaat soxna saa ngi leen di gërëm te di leen sant tey ñaanal nag njabootam gi bu baax ndax ñu ngi koy jàppale ci xamle gi mu bëgg a xamle woy juróom woowu di soxna ummi ci wàllu gëstu ni ko alaaj njaay waxe dana tax bu ëllëgee ku déggati histoire bu aju ci soxna si bala nga ko siiwal da nga natt ndax natt dafa baax ci histoire ndax dangay ngay dégg ku ne diw day ba ko sëñ tubaa nee nangam nga xool ay atam fa mu toll ak fa sëñ tubaa toll woon ak ñàkk jotam ga ndax léegi loolu mënoon naa nekk wala mënta nekk moo tax di natt nag ci buñ la waxee bala ngaa nettali da ci baax gëstu rek nu ci mën a génne kon soxna saa ngi leen di gërëm te di leen ñaanal tey wax soxna astu na nga góorgóorluwaat bu baax ci di jéem a xam turi soxna ummi yi ak fu mën a nekk doote ay làkkat la leen xam nañu xam ne sunu boroom danoo sedd ab cër te nga gis waxtu wu nekk mbootaay yaa ngi daje ngir bëgg a ànd kon ummi yoone yi war nañoo mën a daje bu baax a baax loo ci xam del laaj danañ la ci jàppale bu baax a baax yéen xale yi itam tubaarkàlla gëstu lu am solo la waaye xam-xamit lu am solo la te sëñ Muntaxa wax dëgg yàlla mi ngi leen di soñ bu baax yéen ñi toll ci jàng kon nag na ngeen jéem a def seen xel cim njàng te wattandiku appareil yi te wattande ko internet yi te xam-xam ngeen def ko ci seenub dënn xam-xam ni jigéen di wute eh, cere noonu la kuy jàng wute xam-xam boo nekkee ca classe wala ca daara ja des ñu di la jàngal yaag jigéen ji nekk ci dàgga ji di wut pepp yéen yam cere la bëgg boo ca yamee nag amagoo cere pepp rek nga am bu ngoon jotee nag nga gis muy soq njël la jëm waaye yow itam jëlal sa bind yooyu nga doon jël nag ca kalaas ba wala ca daara ja nga jàng ko ci marax ba jàpp ne mokk na waaye taxul mokk miin nga ko ni nga xam ne boo amoon rendez doo ko faussé yaa ngi régler say téléphone ak say lu nekk nga fexe ba njël googu it soo jógee ni jigéen ji naan jóge di wolloolu bañ naan wo kur gu jëkk yow it nga jël sa bind boobu di ko jàng dana tax lépp mën a mokk ba bu ëllëgee ku lay examen day mel ni yaa ngi jàkkaarloog lañ bindoon ca tabla ba wala ca téere ba waaye boobaa jërul ngay ñaanlu wala dara ndax xam-xam des koy wattu internet seeni moroom yu ndaw moo ko trouvé def ko kon lu ngeen ko laaj bu leen di tontu am na ku nekk ca gannaawam waaye am na leen lu ko tax a jóg kon nag nañ ci góorgóorlu bu baax